Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf élection législative yu ëllëg di beer ci la yenn kaay yépp xëy ni ki tey ji réew mi quotidien di wax ci anam yi nga xamante ne moom lañu ko war a organiser mu mel ni jëwriñ ji ñu dénk kaaraange bi réew mi dalal na xeli général Jean Baptiste Tine ne li ñu waroon jël yépp ni matuwaay am na ba noppi te élection yi tamit dina leer nañ ba noppi libre ci enquête moom jëwriñ ju ñu denk kaaraange bi réew mi mu ngay mel ni kuy wan yoon bi ñi nekk ci géopolitique yi ci seen wàllu bopp général Tine di sàkku ci ñoom ñi bàyyi di wane image yi nga xamante ne kon mën na nasaxal démocratie bu Sénégal wax na yi tamit ci li nga xamante ne moom moo jëm ci jumtukaay ñuy soxla yépp ci élection yi nga xamante ne lépp yóbbu nañ ko fanu ko war a yóbbu ba ci sax école yi nga xamante ne dafa inondé ci diwaanub Matam Saint-Louis ak yeneen gox yi nga xamante ne fleuve Sénégal laal na leen loolu yépp kon jël nañ ci ay matukaay gannaaw matukaay yu ñu jël nag ak campagne gi li mooy dem ca ne quartier yi léegi ñoo war a wane seen bopp yéenekaay bi dañu xamal ni diggante Ndakaaru Thiès ak Diourbel lu jege ñetti million ak genn wàlla ni ay suffrage ñoom la candidat yi war a xëccoo suñu naataango yi di laaj ana kan moo war a gañe xeex bi ci Ndakaaru ndaxam Fuuta tamit dina des ba léegi titre foncier bu Macky Sall loolu yépp ëllëg dimanche la war a leer ndax Le Soleil nee na gannaaw discours yi ak jàngat yi léegi kon mbañ gàcce yi ñoom ñoo war wax ndax campagne électorale bi nga xamante jeex na démb ñu xamante ne war na ci élection bi muy matériel ak wàllu karange lépp yemb na yéene kaay an bi jox kàddu directeur général des élections di biiram seen muy xam ne ni kon ñoom noppi nañu ci bépp fànn ngir organiser élection yu mucc ayib élection yi kon ñu war a jox kàddu gi askan wi bu ñu sukkandekoo ci le quotidien mi dikkaat ci kàddu yi nga xamante ne jëwriñ ju ñu dénk karange bi réew mi yëkkati na ko ci lu jëm ci organisation élection yi mu jàpp ni lépp daal matal nañ ko gannaaw lépp mat na wi nag ñoom ñoo yor kàddu gi jamono ji ci biir yéenekaay bi ñiy féete ci société civile bokk na ci forum du justiciable ak forum civil ñoo ngay sàkku nag élection yi leer te am ci jàmm enjeu élection yi ci la l'info xëyee niki tey ji di wax ni Pastef moom dafa am obligation am majorité qualifiée ngir li mu nas ni programme mu mën ko jëmmal waaye tamit dakkal système bi élection bi tamit défi personnel la ngir Ousmane Sonko te cohabitation moom mooy li mujj li nga xamante ne mën nañ koo xalaat ndaxam cohabitation dana am am wala majorité le Pastef di am loolu mooy laaj bi la tribune di samp ba noppi yéenekaay bi jàpp ni askan wi ci seen wàllu bopp ñoom ñoo yor kàddu gi ngir atte jamono ji li am ba am L'As Quotidien jàpp ni Pastef moom moo war a janoo ak ndax élection bi enjeu bu rëy la ci moom enjeu bi rëy ci Pastef rëy tamit ci opposition bi ndax ci biir source a kàdduk Abdou Mbow bokk ci coalition takku wàllu Sénégal nee na majorité moom buñ ko joxee Pastef ni ku koy tontu ci Walf Quotidien moom njiital Pastef ci biir yéene kaa bi di xam ne ni majorité moom dinañ ko am te bu nu ko amee ki nga xamante ne moom mooy Macky ci boppam daal nu ko yóbbu ca haute cour de justice kàddug premier ministre ba tey ci yéene kaa bi moo di ni diggante yoom ak président Bassirou Diomaye fay amul benn xaar ma yàlla lépp nice good fine lii good kay ba tey ci Walf Quotidien mooy programme bi nga xamante ne Amadou Ba fësal na ko moom te teddalis jàmm ak njëriñ li muy sàkku mooy dialogue ndax nee na mooy lii baax ci réew mi jàmm ak njëriñ Pastef sàmm sa kàddu takku wàllu l'évidence gis ni mooy ñeenti liste yi nga xamante ne mën nañu jàpp ni ñoom ñooy favori ci élection yi waaye ku ci ne ci ñoom am nga ay atuwaaki faiblesse colonel Cheikh Sarr bëgg am liberté provisoire loole la yéenekaay bi di Les Échos xamle moom mi ñu du ab mandat de dépôt ci coowal Doro Gaye sàkku na ci juge d'instruction bu troisième cabinet ngir mu daal di càmbar mbiram ci confrontation bi nga xamante ne amoonoon amal rapport CENTIF tuumal ñu bëri ci nguur gi wees lu jëm ci wàllu blanchiment de capitaux ak fraude fiscale libération xayma ko ci lu ëpp ñeent fukki milliards ci suñu koppar yéenekaay bi di xam ne ni yéenekaay bi yokk ci ni lu ëpp ñetti milliards ak genn wala moom la ñu tracé ci compte bi nga xamante ne ab attaché de direction moom moo ko moom Rewmi Sport di wax ci wàccaay jongante Sénégal Burundi bi nga xamante ne ci talaata gi lay doon ci séance d'entraînement bu bi ni ki démb yéenekaay bi di yi nga xamante ne